kon daanaka ay waxam. la ah, mu Mamadou Fadil Mbacké daa wax rek. ni aw boo ci amee mag am ca rek. mën nga caa noppalu. waaye jitaay bi itam. lu mu ci waroon a wax rek. ñoom danañ ci mën a kon nag kaddu jënd rek lay doon. yu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha. jëm ci njabootu Cheikh Mamadou Fadal gépp ndax li mu seere woon bërki démb rek ba fi sëñ aboo demee da ko wax ni ko damay sant yàlla bu baax ci taw tawfeex yi ma am ci Cheikh Mamadou Fadal mu ne nag yéen njabootu Cheikh Mamadou Fadal gépp itam nag dama leen di wéttali ko ci liggéeyub Sëriñ Touba bi ndax seen yitte ak seen positif ba li ngeen war a man ngeen mel ni loolu nag moom ñoom ñu bokk ñoom sëriñ Touba nun ñëpp nañ ko nañ leen ko seeral li ñaan sëriñ Abo sun borom bàyyi ko fi ba bi nga xam ne magam yu teddee ya. di Cheikh mamour Moussa Fadal ak moom Mouhamadou Lamine Baara. tàmbali ko ci biir kër gi lépp mu àggale ko. ci barkeb Serigne Touba. ci barke Cheikh Mouhamadou Fadal. ndax Cheikh Mouhamadou Fadal. day jëmm joo xam ni. adduna sépp xam nañ ko. démb. ku jaar ci biir dëkk bii. wala nga génn dëkk bi. seen nit ñi. pëstéef bi ñu àndal ak dog gi ñu àndal ngir ñëw ci bisam bii da nga xam lu mu jëfaloon sëñ Touba sëñ Touba fay na ko ko ndax kat màggalu tubaa gii moo ko woote woon ci dëkk bi wootal ko sëriñ bi waaye sëñ Touba fayewaat na ko ci bisi bii ndax bis bii kat àgg na foo xam ne aduna sepp la yéem lool nak leer rek la ci ay mayam ak xar mom nak dafa doon jëmm joo xam ni léppam da koo seeyaloon ci bëgg bi Tuubaa bëggul dara dara ba dara jéemutu dara lépp mu jéewal ko Sëriñ Tuubaa njabotam gi itam mu jël lépp jébbal leen Serigne Touba waaye Serigne Touba fay na ko ci ñoom ndax ñi nga xam ne fekkuwuñ ko sax bu fi Cheikh Modou Fall nekkoon ba léegi nii ni war a mel dañu ko mel ci ñu mel su doomi Serigne Touba yi noonu la su Touba suñu boom meral loolu nag ci pay ko Serigne Touba fay la te wax ni nitu yàlla. ci ngay xamee dara jaam. bi ngay xamee dara jaam. wala ab cëram. wala ab cëram. mooy mu génn àdduna. mooy ginnaawam. mooy ginnaawam. moom mi Cheikh Mourou Fall nag. ginnaawam la ko nit ñi gën a bëgg. ginnaawam la ko nit ñi gën a bëgg. ginnaawam lañ ko gën a bëgg. ci lañ ko gën a yaakaar itam nag. Cheikh Abdou Khadir Mbacke daana wax ni. Cheikh Mamadou Fadal. Cheikh Mamadou Fadal. sëñ Tuubaa da ko defal am sañ sañ ci biir yoon wi ku ko ci neex dugal ku ko ci neex génne te comme ci dugal dara mënu la ca ci génne itam kum ci génne itam dara mënu la ca tabale dara mënu la ca tabale itam loolu nag da ko may li ko ko may mooy jël léppam jébbal Sëriñ Tuubaa bëgg Sëriñ Tuubaa ba ba xalam dara nekkatu ja ni mu ko wax ci baytam yu siiwee rek saf ku du mooy li xubbil xadim li xubbil xadim yi fardan kon nag bis bi lépp lu ci waay yéene lépp lu ci waay yéene te am ci pasteef boo ko ci fasee sunu borom dana la ko defal bi muy jeexale kàddu yi nag ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha mu jëm ci taalibe sëñ Tuubaa yëpp. mooy fàttali rek mooy fàttali rek lay doon. ndax moom. ndax moom. li ko boole diggante njabootu sëñ Tuubaa gi. li ko boole njabootu diggante sëñ Tuubaa njabootu sëñ Tuubaa gi. mooy digal leen. mooy digal ak tere leen ak tere leen. ndigal gi nag. ndigal gi mooy tànn la. mooy tànn la. la nga xam ne. la nga xam ne. wóor na kon bu ci nit ñi jaaree. seen njëriñ lay doon. seen lay doon. buñ ko buñ ko moytoo itam. ko moytoo itam. seen lool du ca nekk. seen lor du ca nekk. loola nag. moom miy digle. moom miy digle. di tere. di tere. mooy xam li gën ci ñun. moo xam li gën ci xam fa war teg suñu tànk. xam fa ñu war a teg ndax sëñ Tuubaa da koo waxoon ne. ndax sëñ Tuubaa daa waxoon ni. ki war a digle war a tere. ki ki war a digle war a tere. bu diglee. bu diglee. bu nit ñi jëfee. bu nit ñi mu wàcc. leen. ñëpp jariñu. bu diglee. ku defut. moom mu wàcc. moom mu wàcc. leen lor dal ci seen kaw. leen lor dal ci seen kaw. loolu nag. loolu nag. na ko kilifaam yi yëkki daa defee. na ko kilifaam yi yëkki daa defee. lépp lu mu gis. ñu tàbbi ci biir yoon wi. ñu tàbbi ci biir yoon wi. dara waru caa nekk. dara waru caa nekk. te waru caa nekk. te waru caa nekk. dana ci yëkkati kàddoom. dana ci yëkkati kàddoom. ñaax ci nit ñi. ñaax ca nit ñi. soññu leen ca. ñu bañ caa farlu. gis na nag loo xam ne. gis na nag loo xam ni. ñu ngi tàbbi ci bir yoonu rawati rek jamono yi bu fi jóg nak na adna àddina baaxoo noonu. ndax shaytané ndax shaytané seigne touba da waxoon ne. yaari yaari inna rek fi nek yaari inna rek fi nek inna ak inna in inna in inna. ak innama ak innama. inna inna seytaan lakum aduun. inna seytaan lakum aduun. neen ak nax neen ak nax la. innama moom ni ixwatun. innama moom la ni ixwatun. nee ak pay la. ak tey la ak tey la. mu ne nax gi ci inna seytaan lakum aduwwun nag. mu ne nax gi nag. tey gi ci mënta yàq tey gi ci inna ma noonu ixwatun. na mënta yàq tey gi ci inna ma noonu ixwatun. loolee rek lay fàttali nag. loolee rek lay fàttali nag. digg bokk jullit yi ak bokk taalibe yi. ndax yëg na fan yii ñuy wax ne. ndax yëg na fan ñuy wax ne. ay kaddu yu jóg. ay kaddu yu jóg. di wax ci loo xam ne. di wax ci loo xam ne. day mel day mel na lu jaxase tariixa yi. te ne loolu tax ko woon a jóg. Serigne Touba. Serigne Touba. bañ ko laajee ay laaj. a ko laajee ay laaj. laaj ko ne ko nuy sa njaboot. daa waxoon ne. daa ni. képp kuy wax laa ilaaha illallah. Muhammadu Rasulullah. kooku sama njaboot. kooku sama njaboot la bokk. mu ne ko fu yoon murid àgg. fu fépp lislaam àgg. kon kooku xàjjaliwut. kon kooku xàjjaliwut. waaye day boole. nee na nag. dégg na ñuy wax ay kàddu. dégg na ñuy wax ay kàddu. di jur ay wax yu bëree bëri. loola nag. loola nag. nañu xam ne. nañu xam ni. mi ngi ko gën a tere taalibe yi. nañ tënku ci ndigalu Sëriñ Touba. te Sëriñ Touba doo leen sëkk nag. ñuy waxtaane baaxu Sëriñ Touba. ñuy waxtaane baaxu Sëriñ Touba. te kenn ku ñu mënta wax ci moom lu baax. ñu maandu ci moom. waaye wax joo xam ni. di indi fitna. di yëkkati ay dënn. di yëkkati ay dënn. nee na loolu képp ku ko def. boo jàppee ne sëñ Tuubaa nga yëkkati boo jàppee nag. na xam ne. na nga ni. yaa ngi suufeel nguuru sëñ Tuubaa. mbirum sëñ Tuubaa. te mbirum sëñ Tuubaa kenn mënu ko suufeel. yàlla yëkkati na ko ba noppi. sëñ tu sunu bon daa wax ci alxuraan ni. wala tasubbu llasiina yad'uuna. wala tasubbu llasiina yad'uuna. min koy suba laa xadu woon nga xëy na xel mi moo tax sëñ Tuubaa daa wax ni képp ku ma waxtaane képp ku ma waxtaane ci barab bu ñu ma xamewul ci barab bu ñu ma xamewul lu ñu ma wax rek lu ñu fa ma wax rek yaa ko gàddu ndax ki xeetu sëñ Tuubaa xëyut ndax ki xeetu sëñ Tuubaa xëyut la sëñ Tuubaa Seex Abdulaay daa wax rek kooka la ci gën la ca gën mooy nga maanu ci mbiram mooy nga maanu ji mbiram kon nag sëriñ bi nee na ñu ko bàyyi xel nit ñi bu baax a baax. te xam ne alxuraan. daa wax ne. wattaxoo fitnatan. laa tusiibanna llaziina zalamoo. minkum xaasatan. wa'lamu anna llaaha shadiidul iqaab. nee na. nee na ak daay. wattandiku leen ko. fitna. ndax bu xasee ba tàkk. ndax bu xasee ba tàkk. yow ma ko taaloon sax. mënatoo jaa mucc. rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wax ni al fitnatu naimatun naam allah fitna man khasha neena fitna neena fitna dafa dafa gëm di nelaw gëm di nelaw neena kep ko xamni kep ko xamni ya ko yeen nak ya ya tal fitna kon nak lolu serigne bi neena mi ko bayilo xal bu baax te borom keur gi kat te borom gi kat daana wax ni daana wax ni nit ki nit ki. li li nga xam ci moom ngay jàpp. li nga xam ci moom ngay jàpp. te jàpp li ngay dégg ci moom. te bañ a jàpp li ngay dégg ci moom. nee na koo xam ne. nee koo xam ni. danga ngaa jàpp li nga dégg ci nit. jàpp li nga dégg ci nit. bàyyi la nga xam ci moom. bàyyi la nga xam ci moom. kon la nga la dégg daa gën a neex sam nopp. kon la nga dégg daa gën a neex sam nopp. daa gën a neex sam nopp. a neex sam nopp. loolu kon nag loolu mat a watandiku la. Serigne Touba daana wax ne. Serigne Touba daana wax ni. yaar rek a ma yéem. yaar rek a ma yéem. fu ñuy sanc ak ku ñuy tudd ak na fu ñuy sanc fu ñuy sanc samay sama xel a dem ci gent samay xel a dem ci gent ba nee na ku ñuy tudd ci nag nee na ku ñuy tudd nag sama dem ci faatu sama xel nga dem ci faatu ba ndax nee na fu ñu sancut nee na fu du gent du na ku ñu tudd dund doo faatu kon nag nañu xam ne adduna kon nag xam ne adduna kenn saxul kenn saxul li am solo rek mooy sax ci lu baax. ak liggéeyal sëñ Touba. ak liggéeyal sëñ Touba. te loolu bu ñu ko defee. danañ ci daje tawfeex. danañ ci daje ci ndimbal. daje ci borom roy ci borom kër gu tedd gii. nag. nga xam dafa jëloon léppam. nga xam dafa jëloon léppam. jébbal ko sëñ Touba. ko sëñ Touba. sëñ ko sëkk. sëñ dara. geesu lu mu mas a dogu sëñ Touba. te lu mu mas a dogu sëñ Touba. wala mu indi ko ci moom. wala mu indi ko ci moom. bala nga foo jógee. loola faju budé jangoro da nga tàggoog mom budé dee aajo bu aajo dana faju kon nañuy ñaan ci dara jam kon nañuy ñaan ci dara jaam ci dara ji bis bi yitti ji fooy indaale señ sun borom faj ko ci dara ji señ Touba barke Cheikh Mamadou Fall wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh